alfadailu la nga xam ne mooy ngëneelu sangu farata ngëneel nag boo ko defee sangu farata day gën a baax boo ko deful tamit du tee nga sangu farata de du tee mu baax de ma ngi lay joxoñ nag lan mooy ngëneel ya amal fadailu ndaa lay ngëneeli sangu farata fahaaka jàppal yow jullit ne addaha limab ngëneel ya maa ngi nii di la ko wax benn par benn tasmiyatan wax ga ngay wax bismillahi rahmani rahimi fa tàmbale di sangu farata ngëneel la daa nañ ko jàngale woon ca lëwéy xeeti laab ya muy njàpp ak tiim foo koy tàmbalee da ngay wax bismillahi rahmani rahimi loolu ngëneel la wa badaha ginnaaw loolu tamit bët bëtu izalati najasatika nga jëkka topp foo xam ne sobe laaloon na fa ca yaram wa nga jëkka raxas loola bam set wicc bërëb yooya fu sobe laa rek raxasal lépp loolu tamit ngëneel la suma xaslun topp nag ngay raxas li zakarin ñeel bërëbëb tuur kaayab ndox ba nga raxas ko jëmmi raxas googee lépp bërëb ba ngëneel la fatan wi ta nga égale yéene ja nag foofee alfarda ngir fas yéene jëf sa jëfi farata yi la sa boroom digal nga fas yéene ko jooxe sam foofee ngay jëfe raxas bërëbëb tuurukaayam ndox ba foofee ngay fase yéene dëgg-dëgg fas yéene ga nag su ma tab di topp na nga tàmbalee jëf jawaari xal wu doohi mbooleem cëri njàpp ya nga def ko bi maratin ci njàppam benn benn min xabli axlaa te ngay jëkkee raxas ga fa féete kaw ci cër bu nekk cër booy raxas rek tàmbaleel fa féete kaw raxas wàcc tax mu ne xabli ahlal jasadi jëkkal raxas gat di ko tàmbalee fa féete kaw ca cër bu nekk waaye nag wasallisan nanga ragg ñetti yoon a rëx bopp ba kooku moom booy jàpp ba yegsi fa ñetti yoon koy ragg de la daa ixtisaali fa ragg ga ah bopp moom boo fa yegsee ragg ko ñetti moom loolu defe ko noonu ngëneel la boo ko deful tamit taragoon nga ko dana baax de waxaddimil yum naa di jëkkëb ndijoor allah simaali dog caa teg càmmoñ ngëneel la ca sangu farat wa faddilan jàpp nañ ne moo gën nag taqliila maahin nga néewal ndox ma doona xat ci lu lim maanaam fépp foo xam ne set na jarul na nga defa def ndox mu bari waaye fu setul mën nga faa def ndox mu bari kon na nga néewal ndox ma alal jawaarihi ca cër ya la daa xaslil jasad ca waxtu wa ngay raxas yaram wa tamit fépp foo xam ne tilim jabariwu fa sat na wecc sotti fa ndox nekk raay mu dem mhm. bul yàqu ndox nag waaye nag na set de wa kullu man képp koo xam ne nag na si fàtte na lum xateen ab duppundal mu fàtte koo rag aw xudduwan mbaa mu tëpp ci rab njapp lu mel ni loxo bu mu tëb ko kooku nag fal yàkku na nekk mu baadiran di gaaw lool nag lil xusli ci dem rag loolee mu tëb xissi na nga xiyaas na nga calculer kat daa moom ragga suno càngaay daal di manqué ii naa isin boobe mu ko fàttalikoo rek na ca daal di jublu raggi ko summa ahaada topp nag bu ko raxasee ba noppi mu julliwaat kulama lépp loo xam ne salaahu julli woon na ko ca càngaay